yerwago e jabar wange xeƴaɗana e yerwago e jabar wange xeƴaɗana e yerwago e kum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk audience Apparail TV ñu leen nuyu baax a baax ziar leen màgg leen ca sama wàcc waay taksan la mu ñëwaat lépp c'est encore ba melax li nga ko def saa son lépp ndax atulaat lañ waxtaane ndax gis ngeen keroog dimanche bu ñu génn lamb ji daal cool yi bëri na xam naa de tamit encore des li nga xamante mooy leeral encore euh, dañ lay bàyyi rek euh, nga nuyoo su mbokk yi si seetaan fii waaw waaw euh, auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu waa réew mi ak ñu ko dëkke di jiital ci nuyo bi laaj Adama Baro mi nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi di ko ñaanal jàmm ndax jàmm mooy jàmmi réew mi ko ko ñaanal bu baax ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci wàllu liggéey bi ak euh, di ñaanal itam waa ahlu làmbi Gambia bu ma nee ahlu nag kenn jiital ci ñi nga xam ne ñoom la ñu wooy ancien gloire takk ngemb ba bàyyi rawatina mbër yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk di daan seen doole di xaasal nuyoo nag promoteur yi nga xam ne lu ñun jàgg ñoom ñoo jàgg ndax seen koppar tëgg làmb làmb du am nuyo boobu yëpp. ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Faye Thiam mi nga xam ne moo jiite lamb ji euh, nuyoo mbër yi itam ñu ngi ko teg ci loxo roi des arènes euh, xoyamtaan euh, lii daal lañ amoon lu ñuy nuyoo wax dëgg yàlla. seen yooyu na solo waxtaan fa nga tàmbalee ni ki damaa doon génn gis ngeen italien Ponson ñu teg làmb waaye gis ngeen rërëkaay mbër yi am li nga waaw loolu moom wax dëgg yàlla. ndog-ndog la rek dañuy wax jaam ak pexem yàlla ak dogalam xam nga loolu sax du njombe waaw waaye xañ na ñenn ñi dinañ ko bëgg a yóbbu foo xam ne xañ na sax du fa àgg waaye loolu yëpp lu yàlla dogal la yàlla moo dogaloon ne ñoom dinañ def seen event ba nga xam ne bis ba rek a jot pour ñu àggale ko waaye ndog-ndog dina ci am loolu mënta ñàkk barki démb rek làmb ju gën a rëy làmb ji xew na Sénégal. bañ demee ba nga xam ne àgg nañ ci cappaandal ji ci la Luc Nicolaï mi nga xam ne moo tëggoon combat ba dem seeti waa kër Aziz Aly Ndiaye ñu jàppalante loolu la jéem te la ayut euh, moom koy lii bon mooy ñàkk a jéem te promoteur bi nga xam ne moom moo tëggoon làmb ji itam ñu ngi koy jëfal di ko gàcca ngaalamal ndax yokkute la ci làmbi Gambia wax dëgg yàlla bu ñu sañoon promoteur yi bari kenn ku ne di indi sa ñaq di dimbale mbëri di dimbale réewam. dégg nga li ma wax euh, bi loolu xewee lépp loo xam ne waroon na ko mi ngi mel ne rek nga doon togg sa añ rek togg ba nga xam ne yàq rek a des yàlla suñ borom bi ne déedéet waa kër gi rek rek rek rek waruñoo lekk yàq bi il faut yeneen gan ñu ngi ñëw taaxeerlu leen xam nga ni ma la ko mën a waxee ci misaal il faut yàlla moo waxoon ne dina am ñoo xam ne dinañ ci lugal seen loxo pour event bi mën a am ndax reliquat mbër yooyu. ba promoteur bi eh, demee ba nga xam ne àgg ci eh, relekaayu mbër yi ci la gis loo xam ne seetluwut ko woon ci la xam loo xam ne xamut ko woon muy lu ko bett nag waxe nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam <coughs> bi gars yi demee ci sëriñ Fay Caam itam di ko ko wax. am na naa euh, bi moom euh, relekaay bi mhm. joxoon na ko sena na ko wala relekaay bi waaw euh, reliquat bi euh, mën nañoo wax ne seenut ko woon waaye lépp lu waron ci làmb ji rek defoon na ko daanaka reliquat rek moo desoon te reliquat bi itam am na ay ndog-ndog yu ci am am na ay ndog-ndog yu ci am ci tënk rek ni ma la ko mën a waxee euh, mbir moom bu yàqoo rek yàqu na bu ndog amee rek jafe-jafe ñëw na waaye nag lii yàlla na doon cangatam ndax xaalis bi moom moo ko liggéey lebu ko sàcc ko tappalewu ko moom moo ko liggéey comme ni ko promoteur yi di defee kon su ñëwee ba nga xam ne egg si na fii ndog ndog rek la bi loolu xewee tam dem nañ ci Serigne Faye Thiam ni Gambeer suñu association. am solo bi sax dégg nañ sax ñu ne xaale bi Boy Sarr eh, dafa lekk li nga ne mooy réer Kambër loolu tamit est ce que ma ma ngi see indi leer. waaw xam nga du ma wax ne Boy moo lekk xaalisu réer Kambër yi ndax loolu leeruma waaye li ma mën a wax daal mooy ndog-ndog am na bu ndog-ndog amu doon niñ joxe woon avance bëri noonu la ñuy continuer compli euh, compléter seen xaalis bi soo ko defee làmb ji mën a am waaye ay ndog-ndog da cee am am na ci ñoo xam ne jox nañ leen xaalis pour ñu war a tëgg ko event bi pour ñu war a seen mbër yi war a bëri seen mbër yi ab seen ñëwuñu ndax dégg nga li ma la wax loolu yëpp ci ndog-ndog la bokk bu bi gars yi demee ci Serigne Feccaam itam Serigne Feccaam li mu leen wax mooy. Euh, sa and regulation la ñuy topp ndax lu waala boo xam ne ñun ñoo ko nangutoo yaa ngi dégg mbër làmb balaa am reliquat day day ñëw teew su mbër yi bëri ba pare duñ am fu ñuy toltolaan duñ am fu ñuy taxawaalu dañoo war a jot seen xaalis seen ñaq te loolu duñ ko mën a am duñ ko mën a def lu feeg reliquat ñëwut xam nga kooku mi ngi ci dëggam xam nga mi ngi gëm bu ko defee nag jafe-jafe ba ak ndog-ndog ba jógewut ci Gambia Wrestling Association jógewut ci làmbi Gambia waaye mën nañoo wax na ci làmbi Gambia la ndax promoteur bi ñëw tey fas yéene na fee nekk ak promoteur yi di gunge làmb ba ca kanam kon nag njuumte moo amoon ndax ñi nga xam ne ni ñoom la jiituloon comme Boy Sarr mi nga tudd léegi dëgg la yàgg nañ ci làmbi Gambia waaye ñu ngi jos organise làmb yàgg ci làmbi Gambia ak dugg ci promoteur ya du benn de. su ma la déggee daal mooy daal booy saa lekk daal su ma la déggee daal si gàttal. déedéet waxuma la lekkut de waxuma la lekk na waxuma la lekkut xaalis bi promoteur bi doon yónnee ci loxo booy saar la doon jaar booy saar moo ko daan récif. léegi xaalis xaalis boobu su ko def xayma si si ñaata la toog soxna xayma. waaw ci li mu wax ci li promoteur bi wax dañ àgg na ci 3 millions ak dara àgg na ci 3 millions ak dara dégg nga waaye nag loolu yëpp boo ko seetee liñ ci génnee ci avance yi. ak li nga xam ne daal loolu la lamb laaj vraiment yi nga xam ne loolu la lamb laaj biñ dugalee li promoteur bi yónnee terewut ba tey xaalis dafa des reliquat. xam nga avance yëpp mat na waaye reliquat ba dafa des léegi reliquat boobu nag même bu doon ten thousand ifin bu doon ten thousand bu ñëwut tàggee ci taabalu Gambia National Association ñoom am nañu raayit ne làmb juru am ndax dégg nga la wax te su boobaa itam ci luwaa la ñuy tënku dégg waaw léegi nag bi loolu xewee bañ ñu suba la ba ñenn ñi sax di dégg di wax ne làmb ji yàqu na làmbu italien promotion yàqu na dootul amati yàlla ñëw ne dina am day amee ci anam yii waaye day am. ba xam nga lu ma jaaxal foofu mën naa ne booy saa boppam moo la ko yéen a mbër di wax ne du am waaw ah xañ na dafa teel a dafa teel a dafa teel a eh, kool rek dafa teel a kool waaye waroon naa teey waroon naa teey waaw xañ na moom itam la tax mu ne làmb ji du am itam xañ na xam na ci dara ndax lépp ci loxoom la jaar du dëgg la tax làmb ji du am loolu man xañ na xam na xañ na mu xam ci lu ma doon wala xam ci li keneen xamut ndax loxoom lépp ci loxoom la jaar moom lañ jiital mooy recif xaalis mooy joxe avance mooy joxe euh, njëgi baria mooy joxe tent mooy joxe lépp daal ci loxoom la ne kon bu taxawee kool mbëri ne euh, làmb ji du am loolu <laughs> jarutoon a weddi waaye nag yàlla booba nee na yàlla nee na ah di làmb dina am waaw day am ci yeneen anam bu ko defee nag su boobaa itam ñu euh, sargal ci jaajëfal ci ku ci mel ne Gumba Gay taxawaay na ci taxaw na ci taxawi defar taxaw na ci taxawi defar taxaw na ci taxawi taxawi bëgg làmbam bëgg réew mi bëgg yitam euh, wax dëgg yàlla ndawi réew mi kon loolu dañ ko ciy jaajëfal dañuy wax ne ku gërëmu doomu adama doo gërëm yàlla suñ borom bi te wax dëgg yàlla nit ki bu defee dara war nañ ko jaajëfal ci lam def ndax lu rafet lam def dëgg la naam ñi bëggee mu amee am na ñoo xam ne sax <laughs> yàlla rek a xam waaye daal doone war waaye bu ko defee nag su booba waaw noonu la comme comme xam nga dem nañ ba guddi gi jot eh, ci misaal suba la tey loo am na waaye ci biir jàkkaarloo bi yaa ngi dégg nit ñi di wax ne làmb ji du am làmb ji du am waaye yàlla nee na làmb ji dina am waaw loolu rek la. waaye ñu bëri sax ñu wax ne Italien Promotion ñoom dañ bëgg a làmb waaye ñoom pare wuñ loolu tamit en tant que président eh, Italien Promotion la nga am li nga wax ah man damaa ngi doog a dégg loolu sax président eh, eh, eh, italien promotion ah, xanaa taytul boobu tey nga ma ko jox. ah <laughs> baax na man italien promotion gars yi joxe nañ avance ba avance yi jeex ah man ma doog a yëg ñu door ma dugal ci istaaf bi wone na man sax bokkuma ci istaaf bi man seen kilifa laa ndax dégg wax. waaye ñun ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fulla joo xam ne ak niñ amee liñ xamee làmb li ñu yàlla xamloo ci làmb boobu ñu nekk ci xale ba màggat ci lu mel nii di jaar ci suñu loxo di nax di naxsaay <laughs> ñun ñàkkuñu fayda noonu xamewuñ xam yéen xam ngeen ko sax waaye dafa nekk ne ñun kilifa lañ magum làmb lañ ñoom bu ñu defee seen organise ba pare li ñu li ñuy def ñu ñëw na ah père ñun de lii lañ def lii lañ lii lañ li ñu war a def mooy ñun de lii lañ def lii fii lañ toll fii lañ toll xam nga loolu lañ war a def léegi nag bañ defee loolu buñ def bañ waree def loolu itam defuñu ko moo tax pakk pakk yu bari bari bari ci waaye man day li ma wérte wóor su fekkonte ne ni lépp loo xam ne dañ ko daan def dañu ñëw ba ci man ne ma nangam ji lii la ndax jàkkaarloo bañ bañ jàkkaarloo ba pare am nañ am nañ profit ci jàkkaarloo bi am nañ fa xaalis two weeks munu maa gis ku bokk ci ñoom two weeks munu maa ku bokk ci xanaa kay boo gisul ku bokk ci ñoom xanaa kay doo yaakaar xaalis boo xam ne dañ la ko jox nga denc ko war a ci fay érélika am déet te lu gàtt gàtt gàtt gàtt xel su fekkonte ne nii xaalis boobu ñëwoon na ci sumay loxo egsi woon na ci sumay wala waxi xaalis boobu egsi woon na ci sumay nopp dinaa leen wax ne xaalis bii kat nañ ko tegagum su borom xaalis borom event bi yónnee xaalis reliquat ñu dugu reliquat lii ñu. bu fekkee itam am na jafe-jafe pour yónnee xaalis. ndax mën ngaa am xaalis bitim réew waaye doo mën a am accès pour yónnee de. ndax am na ku ñu waxtaan sax mu ne euh, mu ne jàkkaarloo ba mu jeex yaa wax ne lu gaa am si jàkkaarloo bi ndax gaa yi duggal si si si si bi pour gaa yi yóbbu si gaa ma associé après leneen la si gaa yi gaa yi mottali ko. waaw xam nga loolu mébét bu rafet la woon mébét bu rafet la woon waaye man damaa gisul xaalis gisuma gaa yi gisuma xaalis ba may yëgee ne nangam ji lañ am. ci laa doog a wax ne lañ fa am mu néew a ka bari nañ dem jël ko dugal ko ci reliquat ndax nag la ma doon wax la ma doon bañ la doon suspect loolu moo ñëw am reliquat yi moo naroon a yàq làmb ji te su boobaa itam duñ ne diw moo ko yàq duñ ne Masamba moo ko yàq waayam ne làmb ji bu amul reliquat du duñ ko mën a bëri lii moo ci ne ndax am na làmb yu fi masoon a jaar seen borom teewaluñu reliquat waaye gis nga jafe am na am na nañ ko wax rek bu ko defee nag ñooñu xañ na loolu la ñuy bañ mu dalaat leen wala loolu la ñuy bañ mu am. am na solo mën naa ne ñu ne làmb ji de am ñu bëri dëkkoolu oncle oncle mu reyaatee man sama nekk si ndax làmb dafa am. ah waaye man man man ci ron luwaa bi laa nekk hmm. <laughs> lan laa mën a def. bi laa nekk mënumaa def dara xanaa ñoom bu ñuy demee ci Serigne Faye Thiam di ñaan ma woo leen rek waxtaan na ñoom xelal leen na leen ne ah kuy ñaan kat moom dafa am nooy demee dafa am nooy waxee itam ndax kilif ñoo ko mag. wala lu mu ci mën a doon wala ñu tolloog ñoom itam lu mu ci mën a doon nañ ko bu ñu jëmee nañ wax la fa ne waaye Serigne Faye caam sax am na kàddu yoo xam ne dégg na ko waaye du kàddu yu jub te Serigne caam nag <laughs> loolu moom lu ma teg mel leen nit ñi bàkke nañ ko loolu ne luwaa moom da koy topp ba keroog ñuy seppi loxoom kon nag lii mooy li nga xam ne moo ci nekk Boy Sarr juum na Italie promotion juum na waaw ñaari juumte moo am ndax lu toll ni xaalis xaalis dafa nooy soo ko jox nit war nga wut witness ñaari nit ba ñett ñu saayin wane ne xaalis nangam sangam dugg na ci turu Etalin promotion duñ ne sax jaar na ci loxo booy Sarr receive na nangam receive na nangam soo gisee may wax lii nag dama cee xam dara mujj gi laa ci xam dara moom laa la wax man dama cee xam dara diggante démb ak tey ndax jël nañ téléphone boo xam ne fi leen daan yónnee xaalis bi ñu seet li ñu transfert xaalis li ñu transfert lépp lañ ñu jot transfert lépp ñu gis ko waaye lii day ñëw tey lii ñëw suba lii ñëw gën gannaaw suba lii ñëw gannaaw waata ëllëg te kenn moo risif kenn mooy xam xam nga loolu itam du dimbale booy saar te xaalis dafa nooy waaye lum tuuti tuuti tuuti gis nañ fi ñoo xam ne tëgg nañ fi event less than hundred eh, two hundred thousand ba xam nga loolu gis nañ fi ñoo xam ne tëgg nañ fi euh, euh, event hundred thousand gis nañ fi ñoo xam ne tëgg nañ fi event one million plus ku nekk la nga dem la nga am ngay demee marché waaye organise boo déggee organise du kenn nit mbooloo lay doon mooy li ma la wax rek xañ na Boy Sarr boo gisee nit ñi di wax Boy Sarr Boy Sarr moom mooy njiit li ndax moom la ñu yónnee xaalis bi waaye Boy Sarr yàgg na ci làmbi Gambia waaye lii mosu koo dal te lii xam naa ne jàngat lay doon ci moom li ma koy dicté rek mooy lenn. nit doo ko yàqal ba pare fu ne nga taxaw fa di wax loolu bokkut ci luwaa bokkut ci ngor dégg nga la ma wax baax njuumte day am waaye bu fekkee njuumte gi dafa jaare ci yow amal ngor gu toll ne da ngay maandu ndax Italian promotion démb toog naa di waxtaan ak moom ba after 12 maa ñu wax mbaytin suñ génn gan gu ñu wax mbaytin ba after 12 ma ne ko dama bëgg nga tëral lépp ci suuf. xaalis bi liggéeyul la yow yaa ko liggéey te li nga bëggoon mooy dimbale ndaw yi làmb ji réussir kenn ku ne am loo ñibbee loolu yàlla def na ko xañ na nag doxewut na nga ko bëgge woon waaye yàlla def na loolu kon santal yàlla nit ñi nag dañuy wax ndax man xam naa làmbi Gambie moo xamul làmbi Gambie xam naa ahlu làmbi Gambie moo xamul ahlu làmbi Gambie am na ci ñoo xam ne maandu nañ am na ci ñoo xam ne maanduwuñ duñ bàyyi weer ci benn fan dañuy jokkalante rek jokkalante kool rek yow wuyul diw yow koolal diw yow diw lay kool kii moo kool kii kii kool kii yooyu rek ngay dégg di rapaaje rek di jaxasoo rek di jaxasoo rek bu ko defee nag su boobaa ma ne ko yooyu yëpp fattal say nopp ndax yaa nekk ci toor fattal say nopp bis bu la Italian promotion tegee tànkam fii du yàgg dara dina fi ñëw bu ñëwee bu toogoo moom ngene ko nga waxtaan ak moom mag sama man de dema juum itam rek professeur jullit la te taalibe seex la nit ku baax la. waaw xaaral bul ma dog te nit ku baax la su ko defee moom mi nga xam ne yàqal nañ ko mu mën a muñ ndax italien promotion three hundred thousand dollars si boo xam ne dem na ci ngelaw xamul fu mu dugg. in fact sax man li ma dugg am na sax ay bor yoo xam ne fi mu ne nii topp na ko ci te daf ko war a fay léegi nag bu fekkee loolu dal na nit li nga war a def rek mooy di ko masaw di ko jéggalu di ko baalu waaye nag du foo taxaw rek wax. ndax fa ngay taxaw ne ne ne yow a munoo faa taxaw ne du man fañ lay taxaw ne la yow na yow la fenn fu ne munoo munoo faa taxaw ne du man ndax wax bu xasee génne ci aya bi rek jeex na kenn mënu koo defaraat bu ko defee nag wax naa ko ko toog na fii wax naa ko ma ne ko da ngay wàññi wax ji boo ko defut luy tooy ci yow la jógee ndax xaalis bi sa loxo la jaar. bor yi ñu fay ci loxo sa ki la ñi la ko fay ñu ngi ci làmbi Gambia te ñoom wax nañ ne fay nañ la ko kon nag nit ki boo fekkee da nga ko bëgg waxal ak wax wax ko dëgg man de lii laa waxe ñoom na wàññi wax ji bañ rek la mbir yi mu mu jeex mu jeex ñu xam ne njuumte la ñu waxtaan ak borom xaalis bi ginnaaw mën naa muñ. ginnaaw mën naa muñ lu toll ni alal jooju ku la ko yàqal moom mu mën a muñ wax dëgg yàlla nag waratu la dégg benn kàddu boo xam ne kàddu gu yàq lay doon wala lu yàq derem wala leneen fii laa fii laa ñoom. am na solo ñu bëri sax ñu ne Oncle moom moo tëgg làmb ji waaye tamit amul amul lu wax loolu. ah du njombe moo tëgg làmb ji waaye amul lu mu mottali ji man ñaata yoon laa fi tëgg kaay ma wax la nag. seeni event sama ñaq dem na ci ba tax event bu mat waaye du ma wax de du ma tudd de du ma def loolu du ma wax te duma ma waaye bari na promoteur yoo xam ne ñu ngi Gambie fii seen event ñaqi booy melax dugg na fa wallahi azim kon nag su ko defee yooyu mënta ñàkk yooyu yëpp coowal làmb la rek am déet <coughs> lii rek moo ci ne. tëggee làmb war naa tëgg làmb su ma tëggul làmb war naa tëgg làmb tëgguma làmb italien promotion moo génnee ñaqam génne xaalisam tëgg làmb man tëgguma làmb boo gisee sama alal dem ci <coughs> bëggoon na sooy bis bi lii rek moo taxoon rek moo taxoon. am na solo fa yow lu tax Madoum Sall ndax ñu bëri am sax mu ne soo gisee oncle euh, dugal xaalisam pour affaire euh, drapeau yi loolu nga si indi leer wala. yi mooy man sama xaalis bañ ubbi moo ba ma ko fa dugalee itam du ma du ma dugal juróom bëgg euh, bëgg fukk. wala ñu ma dugal juróom benn laajte demande juróom-ñaar demande seebin dugal six dugal demande seebin man soxla ma fa loolu yëpp soxla ma fa pourcentage ndax man sama xaalis bi ma ko fay dugal bi làmb ja desee ñaari fan laa loolu dafa mel ni la ma la wax moo ci nekk boo gëmee baax na boo gëmut baax na pour sooy bis bi moo taxoon rek ma def ko ndax am na ñoo xam ne yàgg nañ toog di xaar bis bi mbër yi lañ yoroon yëpp jeex na luñ génne sarax sax amatuñ ko bisu añ sax am na ñoo xam ne amuñ ko kon kooku lu ci waay mën a jàpp rek cee war a jàpp ngir xale yi. man de lii rek laa ci duggee. waaw uncle euh, mën naa ne làmb ji def naa dox de ndax lu ma dégg si drapeau yi loolu gaa génne ak euh, li 150 la gaa jaay si ak 200 la gaa jaay si ak VIP la gaa jaay si mel ni wala drapeau yi tamit des des ñuy yëngal uncle. waaw waaw xam nga drapeau moom kenn du ci ndax drapeau de contrat drapeau moom da nga tuddee nit mu ñëw indaale ñaqam bu dee ñaari dërëm la bu dee ñetti dërëm la bu dee fukki dërëm la sa wërsëg la. doo ko wax ne ko lu tax indiwuloo lii ndax sartawu leen sartawu leen te woon di ak loolu du noonu waaye yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba nga xam ne desaluñ benn mbër fay nañ relikaay yëpp fay nañ baas yeeg lépp loo xam ne luyaasoon nañ ko médecin ñëpp fay nañ leen lañ leen war a fay <clears throat> yaa ngi dégg li ma wax léegi kay fi mu ne nii li ci des rek mooy bi nga xam ne moom moo gën a xaalisam xaalis moo gën a woon xaalisam te xaalisam seey naax saay ginnaaw mën na ko muñ nañ ko ko muñ la bañ a indi lenn loo xam ne luy naqar xaalis dafa sax ci xol loo xam ne luy naqaral xolam la ndax moom jël na di son pour dimbale ndawi réew yi yaa ngi dégg li may wax ay million la génne tabax ci ay jàkk ak ay juma looloo ëpp lim dugal ci làmb te fas yéene na ko ñëw eh, eh, eh, beesal indi si ak lu mu gën a yàgg lu mu gën a gaawe kon kay bu dugalee lii ci lii Eh, accident am ci man noonu laa ko tuddee mu mën ko muñ wax dëgg yàlla sëriñ bi kon kay jaratul yeneen kàddu yoo xam ne dañ ko ci dégg di ko ci xarab ba ay mbokkam di ko dégg di ko ñaawlu ay waajuram di ko dégg di ko ñaawlu loolu jaru ko woon jaru ko woon man de sama gis-gis lay wax waaw. am na solo fi ñuy tëjee si Italie promotion rek euh, ñu ngi euh, oncle dañuy si benn affaire. Italie promotion amalul kenn dërëm yàqalul kenn sàccul fenn lebut xaalisu kenn. moom xaalisam bi mu dugaloon pour dimbale ndaw yi xaalisam boobu moo seey léegi nag moom mën na ko muñ waaye li li nga xam ne rek moom moom moom lool lool loolu lay def te def na ko ba pare mooy jaajëfal promoteur yi nga xam ne jàpp nañ ci ànd ak gumba gay jàpp ci muy ahlu làmb ñëpp lëg jaajëfal gërëm leen ci turu euh, jaarale ko ci turu euh, sama doomi nday mbaytin yaa ngi dégg loolu loolu as gor moo koy def as gor moo koy def moom mënoon naa wax ne dugaluma dara mënoon naa wax ne la ma dugal dañ ma koy fay ci nii wala ca naa ndax maa ko liggéey maa ñaq waaye deful loolu dafa bàyyi lépp mu sedd kon dangay gis ne su boobaa itam ah ñu xam ne wax dëgg yàlla te ñun état promotion bi nga xam ne ñoom ñoo nekke fii xale yi di ñëw fii ci man di defe fii mitin eh, wax dëgg yàlla waxuñu fi dara loo xam ne lu ñaaw la sosoluñ fi kenn yàqaluñ fi kenn waxuñu itam loo xam ne buñ ko waxee ëllëg si biir ñu ne kii ñii lañ wax du dëgg kon nag bu nit amee xelam xalaatam dem ci promoteur bi di ko wax ne ko ne ñii liñ wax nangam lii liñ wax nangam kooka xañ na loolu xalaatam noonu la toll. yaa ngi dégg li ma wax waaye ñun weesu nañ fu ñuy fenale nit wala fu ñuy waxee nit pour am ci moom dara <laughs> weesu nañ loolu buñ yaakaaroon dara ci poosu njaay kon duñ jël suñu alal di ko def ci alali njaay <laughs> am déet. lii rek la. solo yi daa ñaaw sew permettre ñëw fi tamit yëngu 150 rek ndax yi tamit euh, euh, si nga bokk su ko defee. bëggati si maa ngi lay fay di kontaan ci opérative yi vraiment di kontaan tamit ci axlu làmbu Gambia euh, di bëgg Serigne Faye Thiam bu baax a baax ci compréhension bi nga xamante ni def na ko ci mbayteen à travers booy Melax ndax làmb am na foo xamante ni bu fa tolloo mu am jafe-jafe yow mi nga xamante ni yaay bàpp ji te moom loolu la def. mais mention spéciale ak Goumba Gueye ku ci mel ni Modou euh, nga xam ne mooy am naa ci wàllu production ak staffu itali production bi yëpp dañ leen di sant gërëm leen euh, fi may ñëwee rek mooy wax bu yàquwul kenn du ko defar ndax man lépp lu ma waroon a wax ci rajo wala ma wax ko war ko wax ci télé tey jii sama frère sama xarit sama lépp mu nekk nitu làmb waa Gàmbi nañ ko gën a joxaat cër parce que li ma ci waroon a wax yëpp wax na ko li waroon a am si event bi ak problème yu ci am yëpp yaakaar naa tënkal na la lépp loolu rek jaratul keneen du ci dolli parce que luñ ci dolli rek mën nañoo déraper yow aussi dañ la teg sa tànk bu ko bàyyi gis nga boo nekkee journaliste di wax ci maayik nanga ko jàng tarbiyu ko ba lépp looy génnee na nekk luy rafet mais bul dégg teel rek na damm na loolu yàgg naa leen koo dénk te na ngeen ci gën a góorlu làmb dafa xajam te làmb lu ko yàq dafa yomb te pour mu dem nag yéen journaliste yéen a ko mën a defar boo leen ci gisee nag loo xamante ni daf ko war a xajamal taxaw leen ngeen wax ko de leen wëri information yu wóor te wër lii rek laa la mën a wax bëggati am ci Italie production am na lu ko métti mais du ko métti ndax doomu jullit la te yaakaar naa booy melax wax na ci lépp koo xamante ni ay jumaa ki jàkka ki daara moo la tax a jóg tey jii nga gis làmb mu toll foo xamante ni da nga ko war a kii mu ne Sénégambia dinaa fi def loo xamante ni benn promoteur def ko si tànk yooyu la nekk xëy na nag li fi xew dina jaaxal ñu bëri mais duñu jaaxal ndax làmb coow la coow lay ubbee coow lay tëjee bëgg a titi te amul benn problème luñ ci rek rek day dem ndax njabootu staffu euh, itali production ki defar ak ki yàq ak ñëpp amu ci kenn kuy génn ndax seytaane day dugg fu mu xajut lii rek moo ñu dab ci biir làmb ji mais daal damay santaat ñoom ku mbëggee bu baax promoteurs yi nekk biir Gambia nañu gën a suude waat nekk sayu bant bale mais bu ñu séparé wu nekk par benn bant bale ndax benn bantu bale dañ dafay neex damm mais bu ñu nekkee say boo ko naree damm da sonn bëgg a titi foofu ngay teg sa baaraam ndax yaakaar naa li ma waroon wax yëpp wax dëgg yàlla booy melax wax na ko moom dama koy sant di ko gërëm ndax man wax dëgg yàlla mënuma koo fay mënu koo ñaanali si mi nga xamante ni moo am moom laa koy bàyyil Italie production nag lii nga xamante ni ñëw na ci moom yàlla na nekk loo xam ne njiglaayam la foofu lay tëjee ak yow bëgg titi jërëjëf parce que xam nga buñ ne buñ la buñ la buñ la xoxatalee benn yoon nga daw da ragal te yaakaar naa Italie production ñi nekk ci ginnaaw boo leen xool te duñu ay tàppet duñu am lu ñuy reculer comprendre euh, ndax fi ñu jaar ci làmb la gis nañ lu ne làmb boo xamante ni dem nañ ba ci biir làmb sax nit dee ci loolu yëpp am na ci kon tey ji gis ñu leen lu ñuy lu tax a reculer xale yi nekk Gambia dañoo war a fësaat comme fi mbëri Sénégal yi yegg mbëru Gambien yi war nañ yegg fu ko raw mais pour ñu yegg fa nag jàppalante lay doon parce que chaque jour ma naan la jàppal boo gis daa am ñu ca téye ménager yi nañu jàppale mbër mbëri mbëri nañ parce que mbër bu ci jël contrat nga xamante ni da nga sign sa free contrat comme ni ngeen koy waxee man déggu may anglais léegi boo ko kiyee respecté ko ndax adduna boo tolluwul fooy amee tolluwoo fooy ñàkkee boo respecté sa bopp loo bëgg am ci biir làmb da koy am nday la loo tànk am loo bàyyi foofu laa lay tëjalee bëgg titi jërëjëf. am na solo encore ba tey yi nga xam ne dañ dañ def bàgg waaw di daane rek fii sama doomi ndey. Euh, ancien gulwaa la takk na ngemb ba bàyyi bëri lambi Sénégal jox nañ ko ci xaw na mbaytin dinañ la ma ngi ne lay lamb amul lamb bu benn bunt buñ ko tëgg tëjal ci lambi Sénégal te luñ fay waxtaanee dinañ ko woo kon kooku dafa mel ni lambi Gambie sax dañu waroon a profité ci moom waaye nag ñu ngi koy sant ci yitte bi eh, ndax li muy def yëpp pour jàppale promoteur bi la waaye jàppale itam làmbi Gambie la waaye ñu ngi koy sant ci kaw loolu baax léegi mbiri bagwe bi nga ma wax bagwe mën duñ ci duñ ci encourage kenn waaye daal li xew mooy dafa nekk phénomène boo xam ne dafa xew ci àdduna bi wala xale waaye léegi da ngay gis ay liir ay xale yu ndaw ay jigéen ay jàpp yëpp àndandoo dugg ci gaal footballkat yi biir ñuy liggéey ci nguur gi sax am na ñoo xam ne dañuy liggéey ba yàgg ñu bàyyi xeeb wala kumpa jàppaleel ñu dem dugg ci gaale dem ak ah, secteur bu nekk rek boo fa lambee di nga fa fekk ay nit ñoo xam ne jóge ko nañ fa dem bagwe loolu nag moom dañuy ñaan yàlla rek yàlla dakkal ko ñi nga xam ne itam jóg nañ pour dem yàlla jóoleen ci yoonu jàmm ñu àgg ci jàmm bañ a des si géej gi ndax boo ko seetee tey diggante daaw ak ren ndax daaw jege ren du ma wax sax ay fukki at ci ginnaaw diggante ñaari ñetti at yi li fi dee ci ay ju ay ay ci nit ñoo xam ne dañ doon dem euh, euh, travel dem bitim réew mm. jaar ci baag bi ay junni junni junniy junniy nit la euh, lii rek moom moo ci nekk bu ko defee nag lii gën a mën a tax dëgg dëgg dëgg dëgg bi i sob ñu bàyyi xel ndaw yi ci xëy muy réew bu mën a nekk nañ bàyyi xel ndaw yi ci xëy suñ amee luñ jàpp lu fees seen bët wala lu sedd seen xol dinañ mën a dund ci kaw loolu beneen bi ci des na ndaw yi gën a góor góorlu dem jàngi métier ndaw bu fekkee nekkul ci school bi di liggéey di jàng njàngam yàqu na wala jeexal na jàng amul liggéey na dem wuti métier xam nga lu tax bu la yàlla dimbalee nga xoslu jaar baag wi dem ba dem ba dem ba bitim réew amuloo métier ah lebre sax moo lay tane ni ñuy wooye li nga doon bañ fii fi ñu wooye la ko wala nga bañ koo dem defi ñoom ñoo lay tane foofa amuloo benn option tubaab du la gis xool na na rafet nga mu jël la du la gis gis na gentleman nga nga mu jël la tubaab xam-xam lay jël koo xam ne da nga koy indil dara boo jàngu dara nag loo mën a def dara foofu yow yaay gën a sonn sax ñi dem foofu li mu mujj def rek mooy dem ca bay tool di bay ak a roose ay eh, eh, eh, njiiteef bu ko defee nag na xale yi boole ci di jàng métier man de lii laa ci gis ñun suñ time PWD paa yi fa nekkoon dañu daal jël dañuy jàngal métier looloo taxoon. te bari woon nañ fa itam wax dëgg yàlla. xam fii sax mën naa ne gis nañ ne Friday Saturday Saturday euh, Gambia Association dañuy ubbi seen arène mu nekk Farafeñe loolu tamit la nga am li nga wax si waaw loolu bu amee day rafetlu naa ko maa ko doog a waaye rafetlu naa ko maa ngi ko doog a ci yow waaye loolu bu amee rafetlu naa ko itam wax dëgg yàlla euh, loolu daal rafetlu nañ ko daal. affaire na nga ndax yokkute làmb la xataa bu doon benn arène la sax wala ñaari arène sax yokkute ci làmb yaa ngi dégg euh, lii mooy li nga xam ne moo ci nekk euh, ñu ngi ko man daal maa ngi koy rafetlu man maa ngi koy rafetlu di ñaan yàlla nag euh, ñu def ko ay arène arène arène arène waaw man loolu la ñaan yàlla waaw jàmm ak pexe nag yàlla ak dogalam comme ni ko gars yi waxoon ma bañ a ko noonu rek ku laabale bët fu la neex ngay xool loolu day yàq lu bëree bëri bëri nangu ma musuma nangu te du ma nangu loolu laay bañ bañ boobu bañ bi ma bañoon noonu moo waral ba léegi eh, projet bi ñetti at la léegi romb na at ñetti at yi sax romb na ren nga doog a dégg ren doog a dégg ñu ne ñu ngi ubbi benn arène <laughs> kon la ma bañoon rek laay bañ te loolu moo loolu firnde ba bu mooy ñëw di am rek mm. waaw waaye terewul nag mm. coqam ma gën këmm faraloo bee gënu neen lu mel ni faram ko. la ko mën a faram fàcce xanaa nga dem laajte ko gars yi ñu waxal la ko. waxal nga nag moo gën këmu. cuqam moo gën këmu. faraloo bi gënu neen. waaw. dégg nga. angul jamono ñëw naa fi nga ne ma bëggati bi Pikine day dana xaj ñaar Géejawaay dana xaj ñaar encore loolu fan la sukkandiku ba ba ba wax loolu. waaw xam ni làmb di doxe rek xam làmb. ni làmb di doxe ci sama xalaati làmb sama xam-xami làmb loolu rek laa sukkandiku woon boo tax noo wax loolu te loolu fi mu ne nii tey mi ngi am ñoom ñoo war a jug taxaw magi Pikine yi magi Géejawaay yi fépp foo xam ne seen kër toj na rek seen gox toj na rek mag ñoo ñu war a jug taxaw defaraat ko waaw lii rek moo ci nekk waaw lii rek moo ci nekk. waaw hmm. am na solo xam naa dañ lay bàyyi rek euh, nga tàggatoo ndax temps bi dañ xam naa ne daal ku ci mel ne am. su fekkonte ne nii dafa nekk mag moo xam ne dafa bëri ba bàyyi bëri nekk ancien gloire nekk màggat Pikine du toj mukk mën naa ko waat ci yàlla Ama Balde lim daj ci juróomi at yi déedéet lim daj ci juróomi at yi dama lay wax rek boo waxee loo ngay bàq yàlla moo ko ñàkkaloo ñàkk yàlla moo ko ñàkkaloo dara wóoru la ci waaye dama la wan ne lim daj ci juróomi at yi su fekkonte ne nii kuy xaddi la wala kuy ñànki kon waxtu bii nii li muy wax ci gémmiñ gi dangay ngay dégg ñu ne borom gémmiñ gu naa ci du wax jàmm waaye tey rek laa mujj dégg benn audio am lim ci wax ba ko magi Pikine yi doxale woon noonu waxee ko noonu kon dara tigadu toj allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad wa sallim yerwa ko jabaron ga jadana yerwa